waaw ah, asalaamaaleykum sama waa ji naka ma lu bees sànq bi ma wàccee ay midi jaar naa fële immigration ubbi système bi nee na dañ kaa jàpp mu ni jàpp nañ ko depuis semaine passée lan ko jàpp. indeeguñu ko Abu Dhabi moo tax procédure bi dañ koy jàpp téye ko chargé quelques jours defar papier envoyé ko Dubaï ñu téye ko fa quelques jours après ñu indi ko Abu Dhabi téye ko fi après bu numéro bi jotee dina ma woo wala sinon justice dina def liggéeyam carrément tëj ko durée bi déporté ko wala bu dee dan may woo négocier wala bu dee dam koy baal man leen nekk nekkuma ci yooyu de man na procédure bi àgg jàpp nañ ko sànq si système bi dem naa waaj ibbi si système bi nee na ma mi ngi prison nii mi ngi jeel ok jaayef sama waa ji waaw waaw incha allah wala am na ñu ma commencé woo dèjà naan ma comme xam won nga ni mënul nga ko dara baal ko man leen yëpp xanaa déggoo leen kii nee na sama papa bi gaañu depuis vingt neuf ans lay sulli wax wax ju ñaaw nag ni katt ko katt la katt mais ay wax yu ñaaw non kii kay bàyyi mu sedd kii kay du bàyyi mu sedd incha allah te yàlla baax na on verra ok jaay waaw Adama ci kanam maa lay déglu nee na dina def live jàkk dina wax na ñëw wax ci live su waxee wax wax ma ko man sëy suba duma liggéey directeur police nationale laa jëm direct après di nga gis jëf joo mës a dégg ok au revoir loolu su amee ci saa si même bu may nelaw ci saa si rek envoyé ma message ni ma loolu am ci saa si su ma yeewoo gis ma sa message rek xam nga loolu amul bu amee rek message ma ci saa si allo Fall. mais Fall aw kiti mi dañ koo libéré wala lu tax ñu may ko liberté muy live. waaw parce que mi ngi live di wax lu ko saf de. te xam nga ñun moom xajuñu ci ay affaire ndax man yow loo ñu wax rek moom la ñu gëm man loo wax ma gëm ko. a ah, moom daal mi ngi def live am daal di leeral teg ay affaire am te ku nu jàpp wóoroo sax di live téléphone bi doon ko waroon a nangu. ndax mi saaga da yaakaar naa saagaagul de bu mais daal mi ngi wax rek. may ma rek may ma lii kay maa may ma ma ba tey jeex na parce que affaire yi procédure la yow kay déglu ma rek procédure la. baax jeex na yow may ma rek. jeex may ma rek. jeex na jeex na jërëjëf Fall jërëjëf.